bu ñu demee ba réew mi am xale yu toll nii yoo xam ne daanaka ñu bëri ci ñoom amaguñ fanweeri at ak juróom taxawul taxaw bii ñu taxaw seen réew kon ñun mën nañoo am yaakaar kooku loolu il faut ñu féliciter leen ci seen taxawaay di ñaax nag xale yi tollook yéen at parce que réew ay xale ñoo ko yor parce que réew mi su baaxee xale yi la baaxal bu bonee ñoom la bon parce que màggat ñii koy yàq moomuñu ko loolu mooy dëgg réew su baaxee xale yi la baaxal bu bonee ñoom la bonal ndaxte màgga it ñoom wéy nañ ba pare li doon yoon sax mooy ñu dem toogee ne encadré xale yi bàyyi leen ñu doxal réew kon nag loolu moo tax yéen il fallait ma féliciter leen ci seen taxawaay euh, di wax ni lii nu fi dajalee lu ama am solo la ndaxte Sénégal dañoo war a bàyyi euh, ñu jàpp ne xeex bi daa am ñun ko dijjee ñoo xam ne ñoom ñoo war a xeex ñi des nañ toogee ne seen fal ah loolu lu ñu war a arrêté la parce que réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk te su yàqoo ëllëg ñun ñëpp ku ci nekk fa nga toog di nga ci am ay regret kon nag ñun ñëpp ñoo war a am taxawaay lii ñun ñi di di taxaw di ko xeex ku ci nekk da ngaa war a ñëw gis sa bopp te bàyyi bañ a nekk toog ci salon yi ku nekk naan ñii de li ñuy wax dëgg la ñii de li ñuy def baax na te buñ la woowee doo ñëw kooku sénégalais dañ ko war a bàyyi parce que réew mi su yàqoo parce que li ñuy kaas yëpp ñun Sénégal ci lii la ne naam actuellement li ñuy xeex mooy ñun jàpp ci jaay doole ñu bàyyi leen. waaye même bu dul loolu réew mi bu teguwaatee ci yoon même lii nga xam mooy dund ko seer gi ñuy kaas sax boobaa dina dakk parce que ñu koy jiite daan ko teg ci yoon ñàkk teg yoon alalu réew mi ñàkk teg yoon démocratie réew mi ñàkk teg yoon liberté bi nga xam moo war am ci réew mi nga am constitution moo na ko may loolu moo law ba réew mi actuellement mu ngi nërmeelu sénégalais ñi ngi toog di wax mais taxawuñu taxaw jàmmaarloo ak ñi nga xam ñoom ñoo yàq réew mi te moomuñu dañ leen koo dénkoon diir ba jeex na wala mi ngi waaj a jeex ñu ne du jeex mais lu tax ñu ne dafa jeex di jaay doole nit ñi parce que ñii ñuy jàpp du ñooñu ñooy seen objectif l' objectif final comme ni ko camarade Clédor waxee du ñu nee jàpp ñi nga xam ne société civile lañ bokk wala di politique te amuñ ci ay ndombay tànk yu mag ñin bëgg a jàpp ñëpp xam nañ leen wala kin bëgg a jàpp ñëpp xam nañ ko senegal léegi nag loolu muy waajal moo tax muy commencé di élagué élagué maanaam di dindi ñi xàll xàll yoon par rapport ak ñi nga xam ne jàpp na ni ñoom ñoo ko nar a yàqal loolu mu bëgg moom président Macky Sall maanaam bëgg a jàpp képp koo xam ne leader nga boo xam ne en deux mille vingt quatre nar nga koo tere def njombe bi nga am moom lay waajal te ñeme koo wax parce que ba léegi li mu bëgg waxu ko parce que ñemewu koo wax parce que xam na ne sénégalais duñ ko nangu. léegi nag comme ñemewu koo wax ña sénégalais nar a organiser ñi nga ko dul nangu parce que sénégalais yi dans leur écrasante majorité d' accord maintenant nag comme d' accord te am na ñoom ñoom ñoo nar a taxaw di ko organiser ñooñu la bëgg a faagaagal benn par benn di leen jël di tëj ci kaso yi. bu paree nag doog a songu leader politique yi waaw léegi nag kon leader politique yooyu na nga xam ne ci seen kaw la Macky Sall jëm en 2011 Alioune Tine mii ñuy wax ak ñun ñoo àndoon ak ñoom feu Ousmane Tanor Dieng Sall mii tey et cetera ñuy xeex ne bu ñu laal suñu constitution président Abdoulaye Wade mënta am troisième mandat place de l'Obélisque di marche ba ba ba fukki nit ak ñetti dee ci ba nga xamee ni conseil constitutionnel déclaré na recevable la candidature de Abdoulaye Wade waa léegi ñun ñoo ñu àndoon société civile ak pol parti politique yi di xeex pour aar suñu réew lu tax tey société civile bi dong fës ci xeex bi lañ doon def 2011 ba ba nga xam ni société civile bi dañoo ànd ñun ñëpp ak les partis politiques ak ñëpp di taxaw ni réew mi kenn du jalgati yoon loolu la moo war a amaat kon société civile bi kese war ñoo taxaw di xeex ñii xeex ñëpp a ci war a ànd buñ ñu diaboliser naan noo yéen ay politiciens ngeen àndal extra discours divisionniste boobu ñuy def c'est pour bañ ñu ànd la pour doole ji bari pour ñoom li bëgg def duñ fi amee. kon na politiciens yi waajal lii ñuy bëgg a def ku ci mënta ñëw yow sa bopp mais mën nga mobiliser ñun li soxla mooy ñu mobiliser am taxawaay woon président Macky Sall réew mi moomu ko kon nag loolu la ñuy xaar ci politiciens yi te kii fii kenn gënu fi kenn ñun nag duñ fi nekk bu ñu jàppee politiciens yi nit ñu taxaw xeex bu ñu jàppee société civile ñoom ñu toog seen i kër mel ni ñoo gën ñoo gën waa société civile bi lool duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg ñun de xeex bii ñuy xeex pour sunu mbokk yi nga xam ne leen a jàpp ci jaay doole te seen objectif moom Macky Sall du ñii waaye jéem leen a faagaagal pour mën a jëm fi jëm la buñ seetaanee ñu yàgg ci kaso bi buñ fi jàppee ay politiciens dañuy taxaw seetaan loolu il faut wax ji leer parce que wax ji mënta neex dañoo bëgg ñu mobiliser wu ñoom ñëpp ku ci ne mobiliser say section ku ci nekk muy parti politique muy société civile ku yor association ku nekk une personnalité indépendante nga mobiliser say nit ñu def marché bu rëy euh, suba ci àjjuma ji bu 15 heures jotee à la place de l'obélisque ñëpp daje fa ñu def match bu mucc ay marché bu rëy wan président Macky Sall ni ko génneel doomu jàmbur ci kaso bi ñu ngay jaay doole soo ko deful comme niñ ko waxee danañ maintenir la mobilisation jusqu'au sitting de la place de l'indépendance te booba nag bu boobaa jàmmaarloo mën naa am parce que am nañ droit sitting sitting fa danañ ñu ko jéem a tere jaar ko ci seen arrêté tappale Ousmane Ngom bi buñ ko defee daan jàmmaarloo ak ñoom kon nag aujourd'hui li ñu bëgg mooy Macky Sall fi mu jëm fitna la nar a yee ci réew mi te lool ñu ngi wax kilifa yëpp nañu wax ndaxte man fekkee woon naa waxtaan wa nga xam ni sëñ Mountakha moo ñu yónnee woon une délégation bu jógee Touba ka ko jiite woon di sëñ Bas Poroxaan man mii maa ngi woon ca rencontre ba bokk naa ci personnalité yi koo fekke ñu toog ñu déglu ko ñu lu kàddu ya sëñ Mountakha wax ñaan ñu ni dalal leen lépp dina wax président Macky Sall lépp dina dal dina génn ñëpp ñi jàppoon te dal dana am jàmm amaat ñun ñëpp ñu rafetlu ko fasaasa ñu nangul ko euh, sunu sang bu tedd bi. bañ ko ko nangulee Macky Sall yeexal na génne ñam jàppoon sax waaye mujj na leen génne toog ba mu nekk ko dem yokk li mu policier am yokk li mu gendarme am yokk ay armam wut ay char mel ni Sénégal dafa ne ci guerre léegi nag commencé waat jàppaat ñam bàyyi woon moom la mu diggee woon ak xalif général des mourides moom la dem xotti moom président Macky Sall lii mooy dëgg jaay doole nag la fi nekkee jaay doole nag duñ ko fi nangoo tey duñ ko fi nangoo ëllëg na bàyyi doomu jàmbur ñi ñibbi defuñu ko dara ñoo ñooñu mu jàpp ñëpp da leen a jàpp ci jaay doole bu dee Abdou Karim Gueye xorom xaq ak Cheikh Omar Diagne li ñu wax man mii wax naa ko lu tax jàpp ñu ma mm-hmm. li ñu wax mooy li imam day wax bi muy dund imam Ndaw moo ni man dañ ma doon bundu xataal di ma torturer ci prison bi ñu ni kon loolee ñu ko doon def moo am jeexital ci yaramam ba tey jii mu génn àdduna loolu la ñu wax waxuñu leneen imam Ndaw ko waxal boppam waa léegi lool ñu bëgg cee jàpp doomu jàmm di ko tëj Cheikh Omar Diagne parce que teg na partem parce que Omar Diagne li gën a tax ñu jàpp ko du loolu mu wax ci imam Ndaw li mu tax ñu gën koo jàpp mooy dafa teg parti islamiste am c'est permis kum neex nga teg sa parti teg ko ci diine islam laa ko teg am nga ci droit ña ko gëm votel la bu élection amee mais mu wax loolu woote day dem day dem Mali ñu ni noonoo kii il est dangereux nañ ko téye nañ ko téye bala mu ñëw indi li jafe-jafe mais loolu pourquoi loolu jaay doole la donc boo jëlee ku ci mel ni Ousmane Diagne wax dëgg yàlla man bi ma demee prison seeti ko dane ma monsieur parce que man sama élève la woon Ali Mamoulaye dane ma mu ne ma man damaa toog ba caag rek ñu jàpp ma te ma ñëwee ba léegi kenn waxaguma doon ma jàppee ma jàppe ne ko du la wax dara parce que defoo dara dan dan laa ragale xel rek non dañ ko ragale xel <laughs> mais deful dara loolu tax mu ñu ko wax dara lu ñu ko jàppe boo jëlee Pape Ousmane Seck nga xam man xam naa ko ñoo bokk ñoo bokk dëkk nguma ngeewul mu ne ma man 60 000 francs la ma Akhenaton yónnee Akhenaton ak moom ñoo bokk benn baay xam naa seen baay Ibra Seck ñoo dendi kër nguma ngeewul ñu jàngandoo ma ak moom école 1 nekkandoo di foowandoo ñu bëgg maa gëmloo ne Ousmane Seck ab ab terroriste la nii mais Macky Sall moom mooy kan ba bëgg ñoo jaay doole duñu yegg fu nu yàlla yëggul nu ko nangoo ñun sénégalais yi ñàkk fayda mm-hmm. nanu taxaw jàmmaarloo ak président Macky Sall l'heure de la résistance a sonné on ne peut pas accepter que le président Macky Sall nekk fii di ñu jaay doole di ñu xoqatal di jël suñuy doom ak suñuy sët ak suñuy euh, ak suñuy sœur ak suñuy euh, nijaay di tëj ci kaso bi ñun ñuy toog di seetaan kooku mënta continuer kon nag ñi nga wax ni na sénégalais yi mobiliser wu ñu taxaw def marché bu mucc ayib mu génne leen ci nii wala ci naa su ko deful suñu mayee ñu ñu sursoir à la mobilisation bi ñu waroon def à partir de l'université jusqu'à jusqu'au rond-point de la Médina suñu suñu sursoirée boobu la 4 novembre ñu taxaw nag def sitting bu rëy à la place de l'indépendance su ko mayee ñu dem def ko su ko mayewul ñu dem def ko lii laa jàpp ne bu ñu ko parce que Macky Sall li mu bëgg def nii kenn ko fi nangoo tey kenn du ko fi nangoo ëllëg jaay doole dong lay def ñii mu tëj ci kaso bi defuñu dara ay ay gor yu set wecc lañ nekk ci réew mi nekk ay xale yu ndaw mu bëgg leen a jaay doole kooku kenn waru ko fee nangoo donc encore une fois nous appelons les Sénégalais à la mobilisation. L'heure de la mobilisation a sonné parce que ce pays n'appartient pas au président Macky Sall. Nous lui avons confié ce pays pour un mandat de 7 euh, ans, ensuite de 5 ans, ça fait 12 ans. Il a fait 11 ans à la tête du pays. Aujourd'hui, il est à quelques encablures de la fin de son mandat. Il est en train maintenant de préparer un coup de force. Le coup de force qu'il est en train de préparer, c'est de forcer une troisième candidature Maintenant, puisqu'il est conscient que les Sénégalais ne sont pas d'accord sur la troisième candidature, donc le tripatouillage de notre constitution, il est en train donc d'élaguer et de préparer le terrain et de mettre en prison tous ceux qui sont capables de résister pour pouvoir atteindre maintenant les politiciens, donc ceux qui seront candidats en 2024 de façon légitime. C'est ce coup de force que le président Macky est en train de préparer. à se Nous appelons la société civile à se mobiliser. Nous appelons les partis politiques à se mobiliser parce que le, la cible du président Macky Sall, ce sont les leaders au plan politique qui seront candidats en 2024. Donc nous appelons tout le monde à venir à, à, se, joindre à la lutte pour qu'ensemble nous puissions montrer au président de la République que le Sénégal est un état de droit, que le Sénégal c'est un pays où règne la démocratie. Nous n'accepterons pas qu'on Et c'est ça qu'il veut faire dans notre pays. C'est pourquoi nous exigeons aujourd'hui que tous les politiciens viennent rejoindre la lutte, qu'on mobilise massivement demain, donc vendredi à partir de 15h à la place de l'Obélisque, pour faire une grande marche pour montrer au président de la République Macky Sall que cette dictature ne passera pas. Il est en train d'installer une dictature au Sénégal, ce que nous ne saurions accepter. Donc encore une fois, Nous pensons que le président Maxal est en train de revenir sur ses engagements. Les engagements devant le Khalif général des Mourides qui nous avait envoyé des émissaires en la personne de Serigne Bass Nous étions tous présents, nous avons discuté, nous avons respecté nos engagements qui étaient de sursoir à notre manifestation en, Lorsqu'on l'a fait, le président Macky Sall a tardé à respecter euh, donc euh, l'engagement pris devant le Khalif de libérer tous les détenus Après l'avoir il s'est suréquipé il a augmenté les effectifs de l'armée mhm. les effectifs de la police le, et, et, et donc aujourd'hui il est en train de préparer la grande offensive pour mettre en prison tout ceux qui sont capables de faire foirer son projet machiavélique mhm. nous demandons aux Sénégalais donc et aux Sénégalaises de comprendre que ce pays n'appartient pas au président Macky Sall et que c'est le moment de l'arrêter si on ne l'arrête pas il va s'ériger en dictateur et il va imposer sa loi ici au Sénégal et il va imposer peut-être même au-delà de 2024 plusieurs autres mandats parce que parfois on les entend même parler de horizon 2035. Donc on ne peut pour tous les Sénégalais de laisser le président Macky son plan machiavélique. Donc je encore une fois, on se donne rendez-vous tous les Sénégalais qui ont, qui, qui, qui la possibilité de venir à la place de l'obélisque, nous leur demandons encore une fois, ce n'est pas pour nous. Ce pas pour ces gens-là qui organisent cette manifestation, mais c'est pour le Sénégal. C'est pour protéger le Sénégal, c'est pour protéger notre état de droit, c'est pour protéger notre démocratie, c'est pour protéger notre pays. Et c'est en cela que nous demandons à tous les Sénégalais de venir se joindre à la lutte. Je vous